ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew woy bi woy la boo xamante ne dañ ci njukkal suñu waajuri jigéen ñi te mu doon occasion pour ñun homme politique ñu taxaw ci tuuti mu doon prétexte rek buy tax ñu wax ci jigéen ak importance place bu mu war am dans la société sénégalaise te waru ko ñàkk mukk ñu war ko continuer di ko promouvoir parce que jigéen fu mu baaxee rek doom baax fa joomaay mii taxaw tey fii parce que di laaj pour ñu dénk ko réew mi ak ñu mu àndal mu def ci kéemtalaay kattanam liggéey ko bu fi eggee tey sama yaay ma ko waral kooku mooy koo xam ne jàngul woon école mais moo doon téye bale bi ne la kaay jàng sa leçon nga ne ko maa ngi jàng jàng naa ko ba mu mokk mu ne ko waxal may dégg boo dee wax foo gagee rek mu ne la mokkul jàngaatal ci rigueur googu lañ ma yar te jigéen yi mel noonu nag li ngeen gis Sénégal bu baax ñoo ko fi téye ba tey te mën naa ci nekk di wax mën naa ci bind ay livre ay livre livre mu doon exemple rek te mu wóor ma ne lu ma ci wax noppee ko rek am na keneen ku mën a wax lu ko raw ci yaayam te am yéene jàppale ko di di dégg ñu wax ne Bassirou Diomaye Faye candidature am danger la pour le Sénégal sàcc bu sàccee borom yàq di ñëw même bu dee ay nagam lay dàq ji sax moom day jàpp ne danger la parce que xam na lu mu def nekkuma danger ci Sénégal du ma mos a nekk danger ci Sénégal waaye ku taxaw ci sàcc alalu Sénégal ba tax ndóol di fi gën a sax xale yi di dee ci géej gi tali yi baaxul defuñu fay usine mairie yi mënuñu fonctionner njaboot gi am jafe-jafe njàng mi baaxul ku feebar doo faju kooku danger lay nekk ci ba ilaa mi diin pétrole gii nekk Foundiougne Sénégal benn raffinerie la am raffinerie boobu buñ ko installé yàgg na tey ak pétrole bi nekk fii gaz bi war nañoo mën a ubbi fii une nouvelle raffinerie mën a dem mën a am débouché dans la sous-région bi nga xamante ne amaguñu loolu Sénégal nekk un pays exportateur de pétrole et de gaz vers les pays africains d'abord leneen li mooy ku wax ku wax senegal ku wax Fuuñuñ ak Pacifique mais dar ka sa bare na fi est-ce amna fi usine bo xamne daf koy transformer fi lañ koy jëlé di jëndé nono diko jaay bitim rew fi dal dafa melni luñ fi jëf rek dañ ko wara yobbu bitim rew ñu defaree ko fofu andi watal ñuko ñu jënd ko plus cher ba loolu yoon la wallahi loolu dina jeex bu ngeen bëgge mu jeex kan ngeen di tan kan ngeen di tan ku leen tan ngeen di tànn bu leen doy bu baax a baax a baax di leen sant mobilisation bu exceptionnelle bii ngeen def yëngal suñu jamono lu mu leen di yëngalee noonu la ñuy yëngale ñun ñoo toll ci jamono joo xamante ne mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi ñoo xar seen tànku tubéy dogalu Sénégal faw mu changé faw mu changé changement par force mooy Sénégal bu leen kenn gëmloo ne dëkk Sénégal amul lu ko defar dafa am mu am ñu koy sàcc toog jël seen néeg tëj tëj ko xaalis tax ñu mettre ko sax yóbbu ci banque yi lii moo tax bu ñu gisee koo xamante ne nit ñi seede nañu ko moom jub seede ci moom ne bëgg naa jubal bëgg naa jubanti ñu ne kii danger ci ñun. waaye nag bu ñu waxee bu ñu wax mukk kii la suñu dañu wax kii danger senegal ci Sénégal waaye ku bëgg defar dëgg dëgg dëgg sàcc bu nekk danger ngay doon ci moom. dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot ci. xam ne c'est sàcc dara du la ci fekk alalu réew mi ku leen yaakaar mënu fi jeex bu ngeen ma falee le 24. jour boobu lay jël kon solution parti solution baa ngi nii parce que lii gagné moo tax ay góor ay jigéen ay mag ay ndaw ñu gëm senegal Sénégal jaral leen dee jaral leen ñu dagg seen cër jaral leen ñu tëj leen kaso jaral leen ñu ñàkk seen liggéey te ndaw ñoo ñoo booloo parce que yéen a changé Sénégal lu noonu daj ko li yàlla war a lu ñu loolu war lu ñu yàlla waroon dimbale dimbale nañu ko ba pare yàlla may ñu ay mag ñu baax ñu ñaanal réew yàlla may nañu ak ay góor ak ay jigéen ak gay ndaw yu am jom bëgg a liggéey yàlla may nañu ñu am xel dem ba génn bitim réew di fa liggéey xarañ gu nekk nekk ci ñoom lenn rek lañ tumaranke mooy ay njiit yu baax ay njiit yu yaram askan wi nañu yërëm askan wi nañu yërëm askan wi askan wi sonn nañu borom kër yi sonn nañ góor yi sonn nañ jigéen yi sonn nañ ren jii ci senegal lu mat juróom ñetti junni waxuma juróom ci ay ndaw dee nañu ci daw rek senegal pour uti ji waaxu Espagne foofu ñu dem noonu Espagne ay jine ko liggéey wala ay doomu aadama nit yooyu dañoo am ñetti nopp wala dañoo am ñeenti loxo du ñaari nopp lañu am comme ñun am ñaari bët comme ñun am ñaari loxo comme ñun est ce que dañoo xel waaw lu tax mu dem ba suñu ndaw yi dem bar sax jaral leen toog gënal leen toog Sénégal lan rek moo ak ñun. boo leen xoolee sax ñu bari ci ñoom ci dëkk yooyu lu ñu am fii ñoom amuñu ko kon lan lañu am mooy ay njiit yoo xamante ne am nañu yéen a gu rafet ci seen askan di ko jëmal di ko jëfee ba seen réew baax ba suñuy doom di daw di dem foofu te bu changé wul doom yi fi nekk tamit seen doom du leen fi mën a bàyyi parce que bu fi toog boo ko waxee mu ne damaa bëgg liggéey liggéey teral samay waajur du yéen ñëpp ko bëgg yéen ñëpp ko bëgg yar njaboot kon li leen fiy toog loolu ngeen defar loolu defaree ko suñu réew mi ci élection lay jaar du ñu dem jeer mukk am ko puisque nag dox daagu ndànk xëdd di dem wote ji ndogu di feete loolu mettiwul kon nañ ci parlu bu baax a baax góorgóorlu ci matal liggéey bi nga xamante ne fukki at yi sumu ko mu commencé ci lu tuuti wala yàlla def ko ba def ci barke bu rëy a rëy rëy ak suñu ñambaarte mu fulal ñu ko ba tey mu doon yaakaar ju jëm ñu war ko sàmm war ko aar war ko matal bu baax a baax a baax. ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew